الجوهر المكنون والسبب الذي فلولاه ما كان الوجود بخلقتي وأرواح كل المرتدين به هدى من السخي أنوارا لكشف دجنتي من الأنبياء والمرسلين وغيرهم minal muminina ruuhu aslu nashati borom daara ji way na yonen minal anbiya wal mursalina wa xayrihim minal muminina ruuhu aslu nashati faman lam yanal min saqi baata mulqidan wa aasa saqiyan kaafiran kulla dawati borom daara ji way na yonen fa haza rasulillahi wa sanadu laze safaatu wootur jaadan yowma rabbati borom daara ji way na yonen fa haza rasulillahi wa sulamu laze bihi yaddahil abraaru sayran li qadrati borom daara ji gis na yonen fa haza rasulil lil bariyati kullihim saxaadatukum wa fawzuhum aynu rahmati borom daara ji gis na waaw lii téere bi mooy turwatu xilaasu zaab Cheikh Seyd Mahamadul Mansour moom moo ko commencé woon liggéey di sara mimi bu maamam Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu mimi fanweeri buntu la buntu bu ne sëriñ ko par benn livre benn téere daa commencé woon liggéey bi yàlla dogal sax liggéey bi àggagul woon far wuy si boroomam subhaanahu wa marsiya la marsiya mooy lan tàgg boo xam ne dañ ko jëmale ci ruux aji dem bi sunu maam Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz mu génnee àdduna sëñ bi daa def ci moom ñetti xasida troisième xasida bi moo nekk nii bi année 2000 euh, daa daa commencé woon taw mu dem ba yàgg bekkoor am ba bekkoor amee sëriñ bi mu dal di ñaan ci yàlla subhanahu wa taala di yàlla na yàlla xettal nit ñi wàccee tow bu mu ko defee nag ay fan yu néew ci la taw wàcc moo mu tudde istixaasa bi firi xettalu di ci ñaan yàlla subhaanahu wa taala bi alkushuf relation bi xam ne moo amoon diggante sëriñ bi ak këru diini njaasaan ci lañ bokk ndax ku ne xam ne njaasaan ak ki waa woon moo waraloon xalifa général de njaasaan ba mu génnee àdduna sëriñ bi jóge fii dem ànd ak délégation jaali jik mu koy ñaanal yàlla subhaanahu wa taala di beesalaat relation bi xam ne moo amoon diggante ñaari kër yi moo waraloon sëriñ bi defar téere bi bii mooy a tanzil fi asraari tazil maamam Cheikh Al Hadj Mali da ñaan yàlla subhaanahu wa taala dem ziyaari ji Cheikh Ahmad Tidiane Faris boo maamam di ko ñaan subhaanahu wa taala far yàlla may ko ko boo Cheikh Seyd Mouhamadul Mansour ba mu demee Fass à 2007 2006 ci la def tazil bi tazil mooy lan point yi nga xam ne moom la Cheikh Al Hadj defoon fala budda min shakwa ila la kurbati bu ne sëriñ bi yokk ci benn. mu nekk soixante quelque point bii mu ngi tugg tanbiyu al munhamik al jaahid li jawaazi taaddud al jumaa fil misri waahid loolu li muy firi mooy ci benn dëkk dagaan na ñaari juma ñetti juma wala lu ko ëpp nekk ci benn dëkk loolu nag ah, da doon indi dalil yi nga xam ne moom la yàlla subhaanahu wa taala ah, fi ko yàlla daganaale di ko indi ci alquranul karim di ko indi ci hadis yonent bi di indi ci téere boroomi xam-xam yi téere bu am solo la bu am solo la boo xam ne lépp lu aju ci jumaa lépp lu aju ci jàkk sëriñ bi mu ngi ko ci wax bi 1962 bu ñuy inauguré juma Grand Mosquée yàlla dogal Assane Deye moo ñëwoon Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz moo ko jiite woon bu Assane ñëwee naa Cheikh Al Hadj Abdoul jiite woon jumaa bi léegi nag ci la sëriñ bi def defaroon xasida bi ñetti xasida ñetti point la ci boole benn bi mooy inauguration Grand Mosquée 1962 beneen bi mooy euh, roi Assane Dié ba mu génnee àdduna sëñ bi def ci moom ya maanaam di jooy di wax ci la defaroon xasida boobu bii borom bi mu ngi tudd ashuuma ala hamatul buuma mooy boo xamee ne waa Danemark yi ñoo defoon desee caricature ci yonte bi sallallahu alayhi wa julli ñëpp di ko tawat ci la sëriñ bi jël xalimam défendar l'islam défendar yonte bi sallallahu alayhi wa sallam en tant ak ni mu toogee woon ci diine bi ak ci tarixa bi ci la bindoon téere bi mu tuddee kàttan ashuma ala hamatil buuma fet bu ñu jëmale ci kàngu looy lii ci lenn ci mbindu sëriñ bi yii yi ñu binde ci moom la maanaam boroomi xam ñoo binde ci moom lii benn téere bu tudd nafhatul atour fii madi cheikh mouhamadil mansour maanaam boroomi xam-xam yi xam ne ku ne témoignage yi ngi indi ci Serigne Mansour jógee ci dalee ci Maulana Cheikh Alhaji Abdoul Aziz ak yeneen boroomi xam-xam yi moom la ñu boole defaree ku ci téere bi bi benn waaye bu génnee kulliyatu daawatul islamiya bu libi libi la génnee mu waroon bind teesam ba mu ñëwee mu dal di dem uh, jaamia Cheikh Anta Diop mu waroon bind teesam mu bind ko ci Serigne Mansour mboolem lu aju ci Cheikh Seyyid Mouhamadul Mansour mu ngi ci biir jaar jaaro Serigne bi def ñan ñoo ko jàngal liggéeyam activité am ci lépp mu ngi ko def ci bi benn taalibe boo xam ne fii la nekkoon ci daara bi yàlla dogal mu dem Soudan mu àggalee fu njàngam bu am doctorat mu jël doctorat bi def ko ci sëriñ Mouhamadul Mansour mooy Hadi Diouf moom tamit mu ngi ko bind ci dundu sëriñ Mansour ak jaar-jaaru sëriñ Mansour ak saqaafa maanaam culture sëriñ Mansour moom la bind bi tamit naylul amaani oustaz maam góor toob moom moo ko bind ci sëriñ bi boo sëriñ bi génne àdduna di ci wone métital bee xam ne dal na ci diine lislaam bi dal na ci tariqa tijaan bi ci laa ko wax bii tamit benn jaar-jaar la boo xam ne lépp lu dañ ci dañ ci dénk dund sëriñ bi maanaa ñu resim ko ci dund sëriñ Mouhamadul Mansour à 1915 août 1925 ba le 8 décembre 2012 maanaa ñu tënk rek ñu dal di ko def ay yenn photo souvenir yoo xam ne am na ci biir diggante moom ak këru diini ak diggante moom ak famille relation bi mu amante woon njabootu Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu taala bii xasida bu am solo docteur Bachir Ngom moo ko def ci Serigne Mansour mooy euh, surtout Al Hadj euh, Rawane Ngom ndax ku ne xam ne maam Rawane Ngom ak Cheikh Al Hadj Malick seen alaqa maanaam relation da amoon solo chaque année njabootu. maam alhaaji rawaan ngom dañuy ñëw di siyaasi Tiwaawoon sëriñ bi di leen doon recevoir ci la oustaz euh, docteur Bassir Ngom defaroon xasida bi lii tamit boo tey ci mbind Cheikh Seyid Mouhamadul Mansour ci la bokk bii muñ ko tuddee al mahajjatul bayda fi inqaasil ummatil xarra loolu mooy lan yoon bu weex tàll kañ mahajjatul bayda muñ ko binda ci code de la famille bu Sénégal boo xamee ne gouvernement bi dañ ci bëggoon dugal lu ci bokkul loo xam ne l'islam nangu ci la sëriñ bi bindoon téere bi bii di ci bind ay marsiya ay ñaan yoo xam ne mu ngi koy ñaanal bàjjanam soxna umu xayri bu Cheikh Al Hadj Malick ki nga xam ne moo demoon màkk dese bu mu fa desee na sëriñ bi ci la bind benn ñaan di ko ci ñaanal mooy li ñu tuddee marché deuxième bi umu xayri bu sëñ Babacar si borom waañ bi bu mu génnee àdduna ci la seen bi def beneen xasida bi ci mujj mu ngi ko defee ci soxna astukan mi xam ne mooy waajur bi ko yar mooy waajur Serigne Cheikh Ahmad xalifa bi di waajur Cheikh Seyyid Abdoul Aziz Al Amin muy ñetti jigéen ñu baax ñooñu mu boole leen ci téere bi di leen ci tàgg bi muñ ko tuddee tahanina li ahli Pikine chaque année dairatul mutahabina bu ECOTAF ñi nga xam ne ñoo nekk Pikine dañu doon organiser gàmm bu gàmm bu ñëwee Serigne bi yebal Serigne Abdoul Aziz Al Amin mu dal di taxaw gàmmu bu bés bi dellusee ñoom ñu def ndokkeel ndokkeel boobu naa boo Serigne bi ñëwee ci la defar xasida bi muy xasida bu rafet di leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ñaanal yàlla subhanahu wa taala bii ba tey marché yàlla boo xam ne Cheikh El Hadj Abdoul Aziz bu mu fi génnee euh, le 14 septembre 1997 ci ëllëg sa ci la sëñ bi bind di ci jooy papam waajuram xaritam mooy Cheikh Hadj Abdoul Aziz radiallahu taala anhu bii mu ngi tudd nasihatul ixwaan sëñ bi di ci laawe biir ay mbokkam di ci laawe biir taalibe yi ay ñaan moo nekk ci biir yoo xam ne sëriñ bi moo ko joxe woon a ah, mu ne ñu koy ñaan pour yàlla subhaanahu wa def suturo def xéewal def jàmm def jubóo ci biir réewu Sénégal bii muñ ko tuddee al wafa mooy motal wullare wafa li ko firi ma Ruba Assane de bu mu génnee àdduna Cheikh Seyd Mouhamadul Mansour def ci moo benn xasida di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yeesal yërmandem yii daal mooy yi ne yenn ay téere yoo xam ne sëriñ bi moo ko bind waaye li mu bind ëpp na lii te xëju fii lii dañ ko fi defoon exposition rek pour boo nekk ci jaar-jaaru sëriñ bi ak bind sëriñ bi waaye incha allah bu soobee yàlla am nañ yaakaar dinañu bool yëpp ci ndigalal kilif yi dajal yëpp képp ku ko soxla boo ñëwee ci kër gi nga mun koo am wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu wal jawharul maknun wa sababul lazim فلولاه ما كان الوجود بخلقتي وأرواح كل المرتدين به هدت